Il y a un certain Sohaibou Seck qui dit que il a 22 hectares à mbéy 22 hectares yoo xamante ni yow nit ñi dëkk nañ ko nit ñi dañ ko dëkk 22 hectares yoo xamante ni ay tool a fa ne suñu jigéen ñi bu ñu xëyee si la ñuy dem witti lingom guddi gi ñu yóbbu ko jaay ñii di witta màng ñii di witta ay tomate daanaka boo xoolee dëkk yi si tool tool yi moo leen di dundal zone des Niayes c'est une zone agricole 75 pour cent des légumes yi nga xamante ni waa Dakar dañ koy dundee zone des Niayes lay jógee. mais ñun amuñu usine Bambilor amul benn usine amul benn industrie tey tool yi la nit ñi de bàyyi di dund yow nga bëgg xëy na léegi yow ndey tool yi ñuy dundee yow da ngay ñëw jaay doole indi sa baay boo xam kenn xamu foo ko jëlee ne da nga koy jël en force léegi boo ko jëlee ñun lan la ñuy dundee si biir 22 hectares yi la y a plus de centaine de maisons téeméeri kër ñu nga fa nit ñi dëkk fa ñu ngi leen di actuellement di leen génne di rajaxe sans payer dépense

kër gu ne ñu sànni fa deux gendarmes di taal ay lacrymogène si biir kër yi kooku boo demee moom justice amoo benn chance pour gagner ñun na rek lañ man mooy taxaw fii xeex sur le terrain te billaahi wallaahi taalaay suñu arrêté wul lii bakken man na see tuuru tey bu dee sax ñu yóbbu hôpital deewuñu vidéo yaa ngi nii sama téléphone ñoo am dañ leen a gaañ si bopp toj seen bopp yi les vidéos sont là nañ arrêté lii sinon demain ou ce soir la population va riposter daaw la njëkkoon a tenté en l'ancien sous-préfet le sous-préfet d'alors bi mu yëgee coow li bu ko arrêté wul mën na jur ay bakken yu faato yoy mu intervenir def arrêt des travaux def motif risque de trouble à l'ordre public risque bob ba léegi mo fi né dara changé wu fi kon nañu arrêté li, ñun duñ ko massa nangou.